traité la d'homosexuel nga baal ma ci kàddu gi euh, personnellement qu'est-ce que ça t'a fait waaw su fekkee ci wàllu lislaam metti na ma metti na la metti na ma trop hormis ki ma la wax ni ah julli naa naa file naa ay guddi guddi ñaan yàlla attemaat ñoom moo tax coowal Mélenchon li voilà bettuma trop parce que Dieu est juste pour yow sa àq moo leen dal. non mais bien sûr man xam naa ne yàlla dina ma gën a àtte ak ñoom parce que ba léegi maa ngi koy ñaan. Mhm. te képp ku ma ci tudd ñaanal naa la yàlla jour boobu yàlla nga am coowal góor jigéen sa giiru dund wala sa njaboot yàlla nañ ko am sa giiru dund pour nga xam qu'est-ce que mhm. yàlla nañ ko am ñoom ñëpp loolu moom maa ko ñaan ci sama baaxu turandoo waaw su fekkee moom laa gëm moom laa bëgg yàlla na ma yàlla defal képp ku ma ci tudd ci loolu. Mhm. sama kanam ak sama ginnaaw. yàlla na la ko yàlla defal nga am ci coow bu raw sama bos. wala sa ci religion ci diine métti na la. waaw ah, métti na ma ci beneen wàll bi. mais moralement defuma dara. defu la dara. non non en tant que en tant que en tant de média. ah <laughs> defuma defuma defuma dara mais ñi ma xam. Mhm, mhm, mhm. ñi ma xam. non ñi ma xam waxuma la góor jigéen sax mais sang bi <laughs> maanaam soxna si. alors est que xam nga ne est que xam nga ne. maanaam man. bu dul exceptionnellement am na ci yenn milieu yoo xam ne duma fa dem. lu ci mel ni. yu bëri yu bëri yu bëri pour plusieurs raisons. d'accord léegi euh, coow li dafa am lu mu àndal parce que c'est bien ñu waxtaan euh, leeral tuuti. coow lii dafa ànd ak ay photo yoo xamante ni man en tout cas personnellement loolu question boobu moom sama question la j'ai envie de te demander euh, photo yooyu fan la jógee ak photo yooyu boo ñu doon jox quelques explications par rapport aux photos yi nga xamante ni moo accompagne coow yi lan lan la photo yooyu fan la jógee non mais après ñoom Kébé dinañ ko wane dinaa la jox yére bi ma solo yére bi ma yére yére voilà c'est moi s'il te plaît la photo yére yére bi ma sol ci ginnaaw ñu naan drapeau Euh, borom ñaari tur yi moo mhm. ak drapeau LGBT saa n'a rien à voir ça n'a rien à voir maintenant je te donne psychologiquement sociologiquement ak sur le plan communicationnel mhm. gis nga su photo bi fan la woon ba pare Los Angeles la ok euh, euh, kii beach Santa Monica mhm. Santa Monica ak kii ñoo ñoo taxaloo kii beach damay fàtte tour bi donc foofu la woon. Mhm. lan moo fa xewoon. mbooloo boobu ñu gis lan la woon c'était quoi. Euh, les couleurs de la paix les ambassadeurs de la paix ñoo doon def les couleurs de la paix pour xeex affaire. der der euh, affaire raciale euh, comment dirais-je racisme racisme. Mhm. ainsi de suite guerre. Mhm. yooyu la ñu wax la paix dans le monde. c'était ça. c'était c'était les couleurs de la paix. c'était ça l'événement. maintenant man may def vlog comme ñun ñëpp nañu koy defee ah.